si vous n'êtes pas consentante la première étape c'est d'aller à l'hôpital foofu nag dafa métti waaw jël décision dem hôpital pour ñu examiner la parce que dañuy dal sàkku si yow loolu du jigéen yépp a ko mën a def mais c'est la première étape parce que quand c'est quand quand c'est agressif quand ça fait mal quand tu as dit non il faut aller constater faire constater que tu as dit non pour que ñu valider ce non. Mm. loolu il faut ñu def ko. il faut ñu cultiver ko aussi. il faut ñu dugal ko ci bopp xale yi képp koo xam ne dañ la dañ la dañ la dañ la provoqué ba ba egg ci yow de manière agressive ou pas mais d'accord loo donc da ngay dem wane que y a eu pénétration et que tu n'étais pas d'accord mm. même étant marié tu peux dire non ton mari ne doit pas imposer un rapport sexuel mais quand c'est non c'est non mais recrudescence viol yi est-ce à dire que euh, société dafa am góor yu violent est-ce que mun nañ ko définir loolu bu ñu xoolee euh, mbirum refus de paternité mais les les hommes sont violents de de nature maintenant s'ils suñu sentiraient que amuñu comment il s'appelle encore euh, dañu am protection quelque part que dara du si dara du leen si fekk mais dañuy violer di violer di violer di violer rek les hommes ou les hommes sénégalais d'une manière général ce phénomène-là, on trouve ça en France, on trouve ça aux États-Unis, un peu partout. Sénégal, pour le cas du Sénégal, c'est encore beaucoup plus agressif parce que au départ, c'était pas un crime, maintenant c'est considéré comme un crime. Donc euh, wàññeeku na ou pas dañuy gis am na yoo xam ne dañ si génn. xam nga la problème de cas de Adji bi nga xam ne réglé wuñu problème bi dafa gën a jox góor yi fit réglé guñu problème guñu problème bi dañ ko yéex a réglé dafa gën a jox góor fit ah bon waaw. dégg tu entendu je pas seulement le cas de cas de Fatima le cas de Fatima ça n'a pas été agressif sexuellement si ça a été agressif sexuellement dina xam kan moo ko violé ça a été fait dans la douceur pendant son sommeil certainement d'accord en tout cas on a réussi à déverser quelque chose qui a enfanté là qui a fécondé donc euh, l'ovule d'accord ñu jógee nag ci euh, point boobu ñëw ci mbirum politique. voilà euh, dégguñu la ci local bi. xam nga lu tax dégg ñu ma ci local bi tout simplement parce que dañuy sàkk sama page Ndella Madior Diouf Diouf tout en majuscule quelqu'un au Sénégal. votre page sama page officielle fi ma doon ñëpp di seetaanee woon dañ ko ne coppet mënatuma si am accès. moo tax kenn mënatuma gis bu baax ci plateau matin bonheur lañ may gisee plateau et cetera yeneen télévision sama page bu mag bi am abone yu bëri léegi nay coppet à la veille du démarrage des des des des des de ces de ces locales. ki ka dof bëggul ma wax ñu dégg ma parce que xam nañu que man pratiquement télévision dans les réseaux sociaux laa yore woon ñuy jël ay images pornographiques di ko def dans les stories pour yàq sama réputation te alors que man defuma ko. piratage piratage ciblé. mais yow yow xam nga ku ko def wala. xaw ma ko ba léegi dem naa cybercriminalité pour euh, pour ni nga xatee euh, porter plainte ñoom tamit contacté nañu Facebook mais Facebook tontuwul finalement je suis obligée de porter plainte à Facebook directement. jël ay avocat aux États-Unis de hier ñu ngi si woon. parce que jaral na la loolu. jaral na ma loolu sa sa élection euh, sa page Facebook sa plateforme digitale. sama plateforme euh, digitale suñ ko yàqee tilimal ko daf si am impact parce que su lay feeñee yow matin bonheur su fekkee 2S émetteur dafa yàqu kenn dootu la gisati. mais tey la di dem abonné waat da nga créé waat page bu bees. bi <laughs> créé la page bu bees bi Ndella Madior Diouf N majuscule kese. tout le reste en minuscule certainement donc voilà. c'est sûr qu'ils vont donc il faut ñu dem les les deux cent vingt cinq mille euh, abonnés qui étaient là-bas na ngi ñëw euh, abonné wu si Ndella Madior Diouf mais N bi kese mooy majuscule tout le reste en minuscule me suivre également sur TikTok Ndella Madior Diouf candidate maa ngi temps yi sur TikTok je connaissais pas TikTok. donc donc vous êtes candidate mais euh, munoo daal def sa campagne wala boog sa sa ay diffuser sa ay. comme nu ma ko bëggee woon ni nga ko bëggee. waaw comme nu ma ko bëggee woon. moo tax yow nga toog ne euh, kenn gisu la. Mhm. alors que maa ngi coalition wallu avec Ablaye Wade. Ah. D'accord. Je suis dans la coalition Wallu man maa jiite liste proportionnelle euh, commune de Fimela d'accord et ça c'est très important je suis la tête de liste proportionnelle donc coalition wallu sim la mais seen seen coalition boobu justement buñ ci euh, taxawee euh, est-ce que euh, gisoo leen ni woon li gënoon yomb wala boog en tout cas di gënoon rendre solide l'opposition c'était de vous recon de vous constituer. l'idéal c'est une opposition ah, unie. Une de faire en sorte que l'opposition soit unique c'est ça l'idéal. Mm-hmm. maintenant il y a tellement de. de, de clivage il y tellement de de sensibilité donc euh, am ñoo xam ne tamit jubóowuñu am ñoo xam ne dañu jubóo mais mais mënuñu mu njort ba njort euh, Ndella Madior di rejoindre coalition bu Sonko bokk. loolu absolument loolu moom. ça veut dire que au moins yaa ngi suivre jomm naa ko. mais lan lan moo tax déjà c'est c'est quoi votre euh, problème wala votre différent avec euh, le le, le de, le différent c'est simple je l'ai expliqué partout parce que les gens ne comprennent pas. kenn dégguma contre Sonko en 2019 en 2014 ba mu duggee ci politique bi ah kenn dégguma ci Sonko ñu may doog a dégg Sonko ci coronavirus bi le président de la République a reçu euh, euh, tous les une partie de, de des acteurs politiques moom mu bokkoon ci après un mois après ñu interviewé ko mu ne keroog jooj de bu ma bu ma recevoir fa laa jógee dem tëddi nelaw di leen di seetaan. ma ne amuloo droit dem tëddi nelaw di leen di seetaan danga war a sensibiliser parce que jiite nga mbooloo. Mm. rek pro Sonko yi commencé di ma saaga. saaga yi a tellement agressif ba ñu dugg samay vie dugg samay vie privée di tudd ay euh, refus de paternité c'est ça qui a samay sorties ci refus de paternité yi d'accord loolu laa jotee ak Sonko yi ak pro Sonko yi kon àddina du tukki. mais mais àddina du tukki te baalu àq amul. Mhm. àddina du tukki ba may dugg ay ya yaawul xaw ma ay yeewi askan wi xalaatuma ko woon rusoon naa ko jommoon naa ko c'est pourquoi man maa jël sama tànk jël sama téléphone dem rejoindre coalition wàllu Sénégal bu Abdoulaye Wade créé nga xam ne man Abdoulaye Wade sama xarit la sama papa la sama maam la j'ai beaucoup contribué à l'avènement de l'alternance en 2000 dans le bureau d'Ablaye wat si après le soir de du premier tour. mais ñëpp xam nañ ne li woon deux mille du du li woon mille ba 2011. dama la bëgg a wax rek dama miinanteeg moom xamanteek moom apprécier sa politique moo tax ma ñëw rejoindre ko si 2021. Euh, mhm. pour les locales de 2022. tànn bu mu amee ba ma jógee sa benn bokk yaakaar toog ba ma waree tànn Abdoulaye wat laa tànn. tànn tànnuma yeewi wàllu laa tànn. te yaakaar nga ni am nañ doole boobu wàllu Sénégal am na cest à ñu ko constitué même si ko quand même ay euh, kanam lañ ak ay jëmm yu ñu ràññee ci politique gu Sénégal mais euh, politique day dox régime aussi dafay changer et Sénégal am na ay réalités yoo xamante ni euh, saa su benn période passée. dañuy bëgg a euh, euh, souffler waat. Mhm. indi vent bu bees. et mhm. tout mhm. est-ce que yaakaar nga ni coalition boobu réellement c'est coalition boo xamante ni. c'est une grande coalition légitime. pour pour pour pour 2022 et surtout aux perspectives des autres. li si kanam li si kanam rawu la bët li si kanam rawu la bët la grande coalition Wallu Sénégal fait un excellent travail a investi beaucoup de candidats donc euh, ni euh, j'en profite pour féliciter Yewwi Askan Bi si seen mobilisation d'hier pour Dakar ñu ngi ko mobiliser noonu la ko waa waa noonu la ko waa Wallu Askan Bi di pare mobiliser partout au niveau des villes au niveau des des départements. et au niveau des communes. mais amoo tiitaange ci wàllum violence yi euh, ak euh, li ñu dëgmal élection yi ñëwagul mais quand même euh, gis nañ violence yi ni mu commencé. la violence c'est le régime c'est le régime qui veut nous imposer une violence avec une euh, une police qui attaque qui jette à bout de champ des bombes lacrymogènes et tire des balles d'accord la violence c'est cette c'est le régime en place mais les autres je les vois pas extrêmement violents dañuy réagir dañuy contre-attaquer c'est tout ce qu'on a vu récemment avec le cas de Barthélémy Diaz il est parti